أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki M Media Group Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc di jël ziyaar boobu ak ndokkeel bi rek di ko teg ci loxol kilifa gi a Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jot lu ñu ko mbooleem mbokk yi ñu bokkal liggéey bi góor ñi ak jigéen ñi ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu yàggal ko ci suñu kanam lool lu koy suñ jottu ñu àndangoon liggéey bi nga xam ne bi moom la ñu seq muy liggéeyal islaam yàlla dafa ñu julli koy suñ jot di jëy sayyidul wujuud sallallahu alayhi wa sallama kon tey xam naa ñuy ñëw ci fatwa bi rek tey defe naa benn laaj rek lañ fi jot a am sax mu jóge ci soxna Fatma Njaay ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko masaw ci daanu ba mu ne da ko daanu woon ba am jafe-jafey tànk yal na ko yàlla dolli saafar bu baax a baax may ko wér bu baax a baax di jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem jullit yépp may ñu gudd gi fan ak wér ak fekk ak tal ak mujj gu rafet ak jaamu yàlla ko nungu jéggalu bàkkaar ay xéewal ak jàmm ak wér yu ñu mën a liggéeyal islaam bu baax a baax yal nañ ko yàlla defal zahiran wa batinan bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon soxna si daanu boobu mu ne da ko daanu woon ba ab óomam am jafe-jafe lay laaj ne dafa mitti lool maanaam óom bi dafa mitti lool ba buy julli du ko mën a laal buy jullit day toog ci ab sees maanaam banc ci lay toog di julli waaye daal óom bi la mënta laal muy laaj nag googu julli moom nan lay demee lan mooy àtte bi dañ ko naan noonu muy def ni la maanaam julli moom buñ ko doon tënk rek mooy da dul wàcc nit ki benn yoon moo tax nu ko nit ki mane rek te maanaam jéem julli du wàcc nit te ay jëf la yoo xam ne nit ki da ko war a def te doomu aadama dafa néew doole dafa lott dafa tële dafa bari lu ko gàllan lu ko mën a gàllankoor ci wàllu tële kon lislaam da ko naan julli moom feeg noo gaa ngi dem ak dikk rek da ngaa war a julli waaye noo mën a jullee rek maanaam noonu ngay jullee maanaam sa tolluwaay daal ci sa wér-gu-yaram ci say cër ci sa man ci sa kàttan noo ko man rek maanaam noona na ngay jullee kon soxna si loolu mu wax ne buy julli daal oom bi dafay métti ba du ko ñemee laal loolu yàqu ci julli gi dara maanaam jéem dafa métti leer na ko nañ ñene mënu koo laal bu ko laalut maanaam teg loxo gi mu ci waroon a teg loolu bu yàq ci julli gi dara ndax loolu ngànt la loo xam ne lii ngànt la lu wér a wér la loo xam ne lii nu ngoos na ko te it liñ ci tegtaloo rek mooy aay bi yàllay wax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha yàlla moom mi nu bind moo nu gën a xam te ne ne man yàlla duma teg kenn nit wala benn bakkan loo xam ne lii mënu ko kon gis nga julli li mu doon farata lépp yooyu ci nekk ci biir ñi war koo def boo ci dem ba maanaam am ngantal mënoo koo def mu di feebar la wala ak tëli la yépp dañ la koy jéggal julli gi day baax ndax yéene ji rek moo ci am solo ak nungoo def gi sa kemtalaayal kàttan gi kon jéem loolu mi ngi am rek na ngay continuer di julli noo ko mën a jullee rek ak ngant bu ci mën a am ya ca des rek nga di ko def te di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dool ñoo defal tawfiix bu baax a baax bu jëy say bir mu jur sallallahu alayhi wa sallama kon ñu ngi dellu di ndokkeel mbokk yépp nag ci liggéey bu am solo bi nga xam ne bii moom la ñuy Azhar boole ñu seq ko mu doon liggéey bu ama am solo nag boo xam ne bii dañ ci dolle sant yàlla bu baax a baax ndax booy xool liggéey bi li nga xam ne li moo ci gën a am solo muy jàng alquranul karim ak jàng xasidaay cheikhul xadim yi loolu moom ab xidma la maanaam ay liggéey la ab liggéey la boo xam ne bi bu rëy rëy la bu ama am solo la kon li nga xam ne lii yàlla dogal na ñu jàng ko fi ci biir groupe bi ci nangami kaamil muy téeméeri kaamil waaye tamit xasida yi ñu gis ne liñ ci jàng ay junni junni xasida la loolu lu rëy rëy la lu ama am solo la yàlla na ko yàlla nungu bi jaay saydi bu jut boole ko ci liggéey nga xam ne yii moom la xaadim rasul taamu ba luñ ko ca liggéey mu nungu ko yàlla na ci boole liggéey bii bi jaay saydul wujud sallallahu alayhi wa sallam su ko defee loolu ak cant yàlla gu wér a wér la ndax li tawfeex la joo xam ne ji yàlla moo koy defal nit du doon loo xam ne maanaam da koy coobarew rek bëgg ko man ko am waaye xéwal ak yàlla lay doon ak ndimbalam ak ngëneelam goo xam ne gii day am ñoo xam ne ñii da leen koy jagleel ndax wax dëgg yàlla ay groupe bari na lool ci jamono fi mu ne nii waaye wax dëgg yàlla groupe bu mel ni bii nga xam ne xidma la ñu ngi ñu ci jàngal xuraan ju tol noonu di ci jàng xasida ju tol noonu ay boroomi xam-xam ne ci biir di ñu laaye biir di ñu jàngal di yokk suñu xam-xam di ñu fàttali saa su ne wax dëgg yàlla loolu tawfeex la joo xam ne jii liggéeyal xaadimu rasul gu wér a wér a wér a wér la goo xam ne gii daal yal nañ ci yàlla doolu defal tawfeex doolu ñu ci dimbali ba ñu gën ci am jee jublu lépp lu koy yombal lépp lu koy gën a yaatal lépp lu koy gën a yokk lépp lu koy gën a yëkkati daal bu dee zaahir la bu dee baatin la yàlla mi nga xam ne mii moom tëlewul dara te lu ko neex lay def te boroom yërmande la boroom ndimbal la boroom gën la ñoo ngi ko ñaan mu defal ñu ko yombalal ñu ko ba nu gën cee mën a sóobu gën cee jublu gën cee farlu ndax tawféex la ju rëy rëy joo xam ne ji yàlla defal nañu ko yàlla ci yàlla doole jàppale bu baax a baax. waaw ñu ciy ndokkeel ñëpp nag di ci ziyaare ñëpp tamit wax dëgg yàlla liggéey bu am solo bi di ci jiital kilifa rek mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax dëgg yàlla ab soññ la ci bu rëy rëy ci taxawaay bu am solo boo xam ne bii wax dëgg taxaw na ko ci liggéey bi te maanaam xat lool ay yitteem ak liggéeyal islaam ak liggéeyal xaadimu rasul maanaam nga xam ne moom rek yitteem diis ci moom lool mu di ci taxaw guddi ak bëccëg du nopp du guddi ak bëccëg ba fu mu dégg lu baax rek daal di jéem a day daal di tàbbi ca loola ne ca jàmbaare ca lool nag am ca yitteem lool te wax dëgg yàlla am na yoo xam ne comme lu mel ni groupe yi maanaam mu doon mel noo xam ne xañ na yooyu du ko yitteel waaye dafay am tawfeex daal lépp loo xam ne lu baax la du ca xeeb dara kon moom itam ñu ngi koy dolle ñaanal bu baax a baax yàlla gën a dëgëral taxawaayam àggaleel ko ay yéeneem ci lim bëgg a liggéeyal islaam yal na ko yàlla jàpp nalal bu baax a baax ba mu am ci lu kawee njortam te nu ànd ko ak moom ndax wax dëgg yàlla liggéey bii njàngam kaamil mi taxawaay bi mu ci am nga xam ne danañ ci soññ ñun ñépp ndax ni jamono xate ak ni mu baree ay yitte te du tere saa buñ demee ba kaamil bi mat ak lu mu xat-xat rek ak lu mu nekk ci ay yitte yeneen yoo xam ne yitte yi liggéeyal islaam la dina delloo si xelam dellusiwaat ci kaamil bi xat ma ko jàng ko ñaan gi ba mu àgg mu ñaanal ñu mu doog a dellu ci yeneen yitteem ba ñu am ci limbu ton yi muy téeméeri kaamil wax dëgg yàlla ñu jàng ko tey yépp mu xat ma ko loolu ak yittewoo la ak ak bëgg lu baax ak ak farluwaay tamit ab soñj bu rëy rëy la ci ñun ndax fi mu toll ci liggéeyal islaam ak cër bi ko ci yàlla jox bu ñëwee nekk ci suñ biir ne ci suñ kanam ànd ak ñun gën noo farlu ci liggéey boobu wax dëgg yàlla loolu ab soññ bu rëy rëy lay war doon ci ñun kon daal moom itam dal na ko yàlla doole jàppale bu baax a baax daal ba lépp lu mu bëgg a liggéey islaam rek yàlla jàppale ko ca defal ko ci lu koy njortam te nu ànd ko ak moom bi jaay seyna muhammadin sallallahu alayhi wa sallama waaye te ñuy dellu si tamit di ndokkeel di ziyaar itam sëriñ muhammadu juuf ibnu sëriñ ibrahima juuf tuguc moom itam sëñ muudu ñoo ngi koy ziyaar bu baax a baax di ko ndokkeel moom itamit di ko ñaane yàlla gën koo jàppale moom itam moom itam ba lim bëgg liggéeyal islaam lépp yàlla defal ko ci tawfiq moom itam sunu royuwaay bu mag a mag la ci wàllu am pastéef ci lu baax ak bëgg lu baax ak jublu ci lu baax ak di def lu baax ndax wax dëgg yàlla njàngam kam yi nga xam ne moo gën a am solo ci liggéey bi mu jiite ko wax dëgg yàlla da cee wone ab pastéef ak ak bëgg-bëgg ak jom ak bëgg a liggéeyal islaam ci fànnam yépp moom itam ndax moom itam ku ne xam na ne ku ñàkk a jot la ndax toll ci yor mën naa am ab liggéeyam la yor wala mu yor liggéeyam jàmbur di ca yëngu ñàkk ak jot lool waaye moom itamit wan na ci pëste ko saa boo xamee ne dem nañ ba jàngkaan bi rek ba sëñ bi xat ma ko day daal di dagg yitteem yépp lu mu nekk nekk ci ay xat-xat day daal di bàyyi loola daal di ci jaarale ci diggante bi daal di tàmbaliwaat kaamil bi ba képp koo xam ne kii mën ngaa jàng sa tukki rek nga daal di mën a am jàpp na rek daal di koy mën a jàng yow itam kon suñ muuru moom itamit gis nañu pësteef boobu ak yittewoo boobu ak bëgg gi kon yàlla na ko yàlla saxal te gën koo dëgëral bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom itam bu nekk ab soññ bu rëy rëy ci ñun mu war a doon sunu royukaay ba ñu gën a góorgóorlu ba saa boo xamee ne rek tàmbali na kaamil bi ñun ñi nga xam ne ñi dañ ci yor ay jukki ku ci nekk nga jéem a góorgóorlu daal di gën a jubale sa yitte ci jukki boobu nga yor nga farlu ci daal di ci taxaw daal di koy jàng balay bés bi nga xam ne bii ci la ko sin bi dooraa xam ne bii ñëw loolu daal moom maa ngi ciy soññ sama bopp di ci soññ ñëpp rek ñu gën cee góorgóorlu gën cee def yitte comme ni nga xam ne noonu la sëñ Muudu di def saa bu sëñ bi xatmaa mu daal di tàmbaliwaat ab jukkeem waaye tamit saa bu kaamil bi jeexee sëñ Abdul Ahad Mbàkke daal di xatma ko nga xam ne du ko du ko du ko tardeel benn yoon ñi nga xam ne ñi dañu yore jukkiit wax dëgg yàlla loolu ab soññ la war a doon ci ñoom ñoom itam ñu gën cee góorgóorlu gën cee farlu ba ñu ci gaaw di jublu daal di ci def yitte di ko teel a jàng bu ko defee mu gën a yéwénal liggéey bi ñi nga xam ne ñi tamit ñooy jàng xasida yi ñoom itam ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ndokkeel ñoom itam wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi lool ndax jàng xasida yi dafa am solo lool ndax mbindam sëñ bi moom maanaam mooy alxuraanul karim rek ñi kon nag ñi nga xam ne ñooy taxawoo wàllu xasida yi tamit muy góor ñi ak jigéen ñi ñoom tamit yàlla na yàlla gën a dëggal seen taxawaay gën leen a jàppale ba ñu gën ci mën a jublu bu baax a baax nga xam ne xasida it moom itam loolu ci jàng rek doyut ndax moom it ay tawféex la yoo xam ne yii yàlla defal na ci sëriñ bi ay secret yoo xam ne yii ci mbindam moomu njàng mi ñu koy jàng dafa am solo lool lool mu bokk ci liggéey bi te ñu gis na itam wax dëgg yàlla am na jëmm yu nekk ci biir groupe bi farlu ci lool ba lim bu am solo ba nga xam ne bi jàng nañ ko ci nga xam ne bu ñu ko doon lim ba xam ne nangami xasida jàng nañ ko ci day nekk ay junni junni xasida kon loolu yi tamit lu rëy rëy la lu am am solo la lu baax a baax la loo xam ne lii tawfeex la joo xam ne ji yàlla da koy defal nit ki rek maanaam mu mën caa soobu mën caa taabi mën caa bokk di ca jàpp kon ñoom itam yàlla na yàlla gën a jàppale ba ñoom itam ñu gën a mën a yokk li ma xasida yoo xam ne moom la ñuy jàng te lépp dugg ci liggéey bi nga xam ne bii mooy groupe bi nga xam ne groupe ba xidma la ñu di ko liggéeyal Cheikhul Xadim yàlla gën cee jàpp bu baax a baax bi jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi siyaare yi tamit boroom xam-xam yi nga xam ne yii yàlla dafa dogal ñu nekk ci biir liggéey bi ñoom itam ñoom itam xam naa buñ ci jiitalee ak Cheikh Mouhamadul Mourtada Badiane Touba ñaxab rek maanaam mu jot li ñu ko mbooleem boroom xam-xam yi jàngale ci biir daara ji mu jot li ñu ko ñoom itamit yal na yàlla gën dëgëral seen taxawaay ndax ñoom itam mën nañ ne lu réere lu ama am solo la ñu def ci biir liggéey bi ndax jàng jàngale moom dafa am solo jàngale dafa am solo lool lool te wax dëgg yàlla ñu ngi ci jàngale njàngale mu rëy rëy moo xam ne nii moo ama am solo la ba ku leen di topp di jël seen leçon yooyu nga xam ni seen njàngale moo xam ne moom la ñu joxe dafa loo xamutoon ci sa diine wax dëgg yàlla mën nga koo xam waaye itam loo ci fàttali fàtte woon itam mën nga koo fàttaliku kon ñoom itamit seen taxawaay boobu ñu taxaw muy di jàngale wax dëgg yàlla di jàngale jàngale mu leer mu am solo mu yaatu moo xam ne nii dañ caa def seen yitte di ca def seen ak kemtalaay kattan ci luñ ko mën a leeral ngir mu dugg nit ñi ñoom itamit yàlla yàlla gën a dëgëral seen taxawaay ñoom itam gën leen a xiirtal ci liggéey bi gën gën a dëgëral seeni kàddu gën a yokk seen xam-xam gën a leeral seeni dund ak seeni làmmeñ ba njàngale moomu ñu nuy jàngal nu ci xame lu nu xamutan da ci farleku lu nu fàtte woon loolu lu am am solo la yàlla na ko yàlla gën a dëgëral bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñoo ngi siyaare tamit di ndokkeel woyu teewlu yi góor ñi ak jigéen ñi ñoom i tamit ñoom it seen taxawaay ñoo ngi koy rafetlu bu baax a baax xam na ñoom itam buñ ci jiitalee kilifa gi rek muy sëriñ Mbasu Njaay ak soxna Astu Jóob rek ak sëriñ Ndiir suñu mag ñuy jël ziar boobu ak ndokke boobu ñoom itam di ko teg ci seen loxo di leen ñaan ñu jot ñu ko mboolem jëmm yi nga xam ne ñoo ne ci biir liggéey bi góor ñi ak jigéen ñi ñi nga xam ne ñi xañ na ñoom itamit la ñu féetewoo mooy di teewlu ak di tàbbal ay laaj ci biir liggéey bi ñu di ca jéem a góorgóorlu ñu di ca jéem a def ay gëstu ñoom itam ñëw leen di ziar bu baax a baax di leen ndokkeel di leen sant ñoom ñoom nga xam ni wax dëgg yàlla ku mel ni sëñ Mbasum Njaay wax dëgg yàlla ak sëriñ Diir ak soxna Asta Jóob Astu Jóob nga xam ne wax dëgg yàlla fi ñu toll ci ay at ak ñi nga xam ne ñu ñëw na ci groupe bi boo ko doon méngale rek nga xam ne ñoom bëgg lu baax ak liggéey sëñ bi rek moo leen yitteel wax dëgg yàlla ñu nekk ci suñu kanam di ñu soññ saa su nekk nag ndax saa bu nu xalaatee rek suñu xel dem ci ñoom maanaam dañ leen di dolle jox ak cër bu baax a baax di leen gën a naw bu baax a baax suñu xol di leen gën a bëgg bu baax a baax ñu di leen bàyyi xel bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ay kilifa lañu yoo xam ne ay jullit lañu ay taalibe lañu ay taalibe lañu yoo xam ne ñu ngi dund jullit gi di dund taalibe gi ndax fi ñu toll ci yaat ak ñeneen ñi boo koy xool ni mu rawaatee ni mu soree te ñu ñëw dugg ci suñ biir nekk ci ñun kanam di ñu soññu di ñu woon seen yitte ak seen ak bëgg lu baax di ca wax seeni yéene di ca def seeni yéene wax dëgg yàlla loolu ak bëgg la rek ak ak baax ak am tawfeex joo xam ne ji yàllaa koy defal doomu aadama ñoom itam kon loolu yàlla leen ci yàlla gën a dëgëral nga leen ci jàppale yàggal leen ci suñu kanam bu baax a baax a baax di jeey seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama waaye tamit ñuy beral am néew nag ak ab ziar ak ak ndokkeel jëmm ji nga xam ne ji moom la yàlla defal tawfeex nga xam ne lépp wax dëgg yàlla bi ko yàlla nammee mu doon loo xam ne lu war a am la lu war a nekk la moom la ko yàlla jaarle ci ab loxoom moom la ko yàlla jaarle ci moom ndax yàlla moom loolu ñuy wax rek yàlla moom bu la bëggee da lay liggéeyloo ci lislaam kon muudu ngom mi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla moom la yàlla dogal mu xalaat groupe bu mel nii di ci jàngat di ci xalaat ba génn ko ci aw làmmiñam ba yàlla defal ko ci tawfiix yi mbooloo mi ci nekk fekk si ko moom itamit ñoo ngi koy ñaane yàlla bu baax a baax liggéey bu rëy bii nga xam ne bi xalaat na ko tudd ko ci aw làmmiñam yàlla jàppale ko ci ba ñu nekk ci nii wax dëgg yàlla lu kowe kowe njortu am na ci nag ndax li nga xam ne li moom lañ ciy jàng ci alxuraanul karim di ko ci jàng ci ay xasida boroom xam-xam yi di ci jàllale xam-xam di ñu jàngal bu baax a baax loolu liggéey bu rëy rëy la bu am am solo boo xam ne bii moom mi ko xalaat xàll yoon woowu ba ñu aw ci loolu tawfiir ju rëy rëy la moom itam ñu di ko ci ndokkeel bu baax a baax di ko ñaanal moom itam yàlla gën koo dëgëral gën koo jàppale ba lépp loo xam ne lii moom la bëgg a liggéeyal islaam rek yàlla defale ko ko nu koy suñu nu koy njortam dañu ànd ko moom di jëy suyne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xam ne lii mu def nii muy groupe bi nga xam ne bi moo ko créé xalaat ko taxawal ko yàlla jàppale ko ci nga xam ne tawfiix ju rëy rëy rëy la ndax doomu aadama moom nu mu mën a def rek di nekk ci dara kon liy njiglayal nit mu di jullit nekk ab taalibe nag di liggéeyal islaam di liggéeyal xaadimu rasul ndax liggéeyal xaadimu rasul mooy liggéeyal islaam liggéeyal islaam mooy liggéeyal Seydina Muhammad liggéeyal Seydina Muhammad mooy liggéeyal yàlla ñooñu moom ku leen liggéeyal rek sa liggéey boobu du naax saay mukk sa liggéey boobu du naax saay mukk kon mu dungam ñi ngi itam yàlla na ko yàlla gën a defal tawfiq gën koo jàppale ba liggéey bi mu sumb te am ci yéene taxaw ci lool moom itam ci fànn yi nga xam ni mooy jàllal liggéey bi yépp moom itam yàlla na ko ci la gën a jàppale defal ko ci li ko njortam ba fu ñu bëgg liggéey bi àgg fa rek loola yàlla defal ñu ci lu koy suñu njortu xalaat lu baax dafa am solo lool ndax lislaam moom ba ko yàlla wàccee ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba fii nuy nekk ni tey jii fii nu toll nii lislaam maanaam dara yokkuwaatu fi dara wàññiku fi xanaa lu fi yokk keneen na ko ci yokk mu doon lu mu tànnal boppam waaye lu ci wàññiku it nit a ko cay wàññi rek ci teg ko ci coobare boppam waaye lislaam bi yàlla wàcce woon ci seydina muhammad ca makka mu toxoo moom dem madina mooy dox ba sunu jamono jii nu toll nii muy tey jii waaye itam mu ëllëgit lislaam boobu mooy dox mooy continuer ba kero bis kero àdduna di jeex saa su soobee yàlla kon la seydina muhammad waxoon rek ci jullit moom dafa am solo lool ngay dund ak jullit ci say wax ci say jëf ci say xalaat ndax lii mu def nii muy muudu ngom def groupe bu mel nii mu nekk xidma ñu di ci liggéeyal xëy xaadimu rasul dafa nekk yoon woo xam ne bu am am solo la woo xam ne wii yàlla da koy defal tawfiix yi ku mu bëgg a dimbali da koy defal tawfiix yi ku mu bëgg bëgg la liggéeyloo ndax seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu na képp koo xam ne kii xàll nga aw yoon maanaam wut nga aw yoon woo baax muy def lu baax nga xalaat ko di ko def wala nga di ko wax nee na yoon woowu nga xàll ci lislaam mu doon lu bees la nga yàlla dala ciy defal ab yoon dala ciy defal ay teraanga àdduna ak alaxira ba kero àdduna di tukki waaye tamit képp koo xam ne kii roy na la ca ànd na ak yow ca loolee nga xàll mu yoon woowu mu di ko def comme na nga koy defee ngeen bokk ci yéene moom itam da cee amub yoon waaye tamit yow mi ko xàll xalaat ko nga xam ne yaa ko jëkk a def yaa ko jëkk a xalaat képp koo xam ne kii roy na la ca rek la ko ca yàllay feya maanaam dala koy ñëw feya la ko kon loolu lu rëy rëy la lu am am solo loo xam ne lii tawfiix la yàlla di ko defal nit ki kon liggéey bi yàlla na ko yàlla nungu bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te doolu ñoo defal tawfiix bu baax a baax a baax ba suñuy jamono li ñuy dund ci kaw suuf lépp suñuy wax ak suñuy jëf ak suñuy béréb yi ñuy nekk di fa dem mu nekk béréb ak i jëf ak i wax ak i yéene yoo xam ne yu neex yàlla la yoo xam ne yi tawfiix lay doon ci ñun yàlla ñu di ko ñaan mu fajal ñu suñu aajo zahiran wa batinan bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam